mbokku téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte di jàkkaarloo ak yéen di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi tey la àjjuma fukki fan ak benn ci weeru mars 2016. am mbégte di àddu ngeen di sewlu seen télévision Futurs média seetu askan wi seen émission yeewu leen bu àjjuma yeewu leen bu àjjuma. ñu leen di gërëm yéen ñi koy toog di di ko seetaan ak ñi bind ak di yóbbante ay félicitations ci loolu di wax rek ñun yéen a tax ñu nekk fii moo taxit lépp loo xam ni bu ñu ko defee mu ngeen bég ci am ci. Euh, xalaat bu rafet dañ ko ciy def ndax ñu nit looloo nu fi tax a toog ñu ci ànd ak ñi nga xam ni ñoom laa ci àndal saa su nekk tey jii ñooy ànd ak sunu jigéen sunu xarit Adja Binta mi ci lamb dis bi tey Adja Binta tey loo xewle tey de da a da ngaa xaw a metti tey suba teel gi ah. xewlewu ma dara nii rek laa koy defee di. waaw bañ a seddal rek. ah kon mu nuyoo boog ñu jàll. du noonu nga ko bëggee. noonu laa ko bëggee noonu laa koy <laughs> maa ngi nuyu ñëpp di la nuyu Abdou Aziz di nuyu Oustaz euh, Playboy di nuyu euh, sama xarit Oustaz Pape Anne di nuyu euh, Alfie la. borom waañ bu neex bi maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu euh, petit di nuyu off di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci plateau yeewu leen di nuyu aussi les téléspectateurs. waaw jërëjëf euh, Adja Binta ci ni mu defee tey xam naa ni bii moom bu dakkee moom nit ñi moo taxit dañ koy wax saa su nekk nuyul ma Adja Binta ci Facebook yëpp gaa yi ngi ciy dugg a euh, oustaz a ngi noonu oustaz Pape Ar yaa muallim maa ngi lay ziar mu lay Alhaji Abdoul Aziz di nuyu oustaz Assane di nuyu Seyda Adja Binta sama xarit. aja alfi alfi moom yàlla xam aju moom manqué woon nañu lool ñëpp saalit nañu euh, di nuyu euh, yaawo of di nuyu Serif Anne ja moom xam nga ja suba teel kenn du ko tudd <laughs> di nuyu Serif Anne Serif Ja Anne maa ngi koy nuyu wulaay di la ziar di nuyu téléspectateurs yi jàkkaarloog télévision Futurs Médias jërëjëf Oustaz Pape ma dem ci Oustaz Playboy mi nga xam mi ngi ci Facebook bi ak euh, Colé moom la ma gaañu wax <laughs> Oustaz Playboy maa ngi nuyu Moulay maa ngi lay delloo nuyoo am mbégte àndaat ak yow si yeewu leen macha allah di mais nag am na ku ma gën a gisoo li ma la woon léegi am na ku ma gën a play boy de. <laughs> di nuyu bu baax Binta sama mag sama xarit oustaz Pape Anne kii il faut mu joxe demande d'explication. ak mbokku téléspectateurs yi télévision Futur Média di leen ñaanal aljuma jàmm. jërëjëf mbokk yi tey xam naa ni bu leen ni te Alfi it ñëw na waa ñuy am na tey gan xam ngeen Alfi moom bis bu absenté rek xam nga lu bare koy téye moo taxit tey mi ngi ànd ak xam naa Bour Sofia Adja Alfi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant. leen wax ni quand namoon naa leen euh, yow oustaz moom dinaa la jox demande ci kanam xam naa bu recette bi ñoree rek serviré du wax dara donc euh, di jaajëfal ñëpp di leen dokkeel ci ajuma bi tonton Alice donc tey nag ñu fas yéene indi benn recette salée boo xamante ne ay brioche farcie la maanaam ay brioche farcie yoo xamante ne il foog ñu defar pâte bi à l'avance moom laay njëkk defar ni ak euh, meewu sufia bi donc ci kanam bu ñu ñëwee ma expliquer parce que pat levé la dama ko war bàyyi may temps pour mu pour mu gonfler. waaw ah, ngi noonu dina ànd ak Chérif ci li nga xam ni mooy euh, journal bi ñu wax ci bu ci kanamee mbokk yi téléspectateurs yi ñu door sunu émission yeewu leen ak les may ak Oustaz Mor Thiam. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa taabiciina lahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi sang yu tedd yooyu toog ci plateau bi di leen ziyaare di ñaan sunu boroom yal na yàlla gën a barkeel sunu réew yal na yàlla gën a yokk sunu réew dal yal na fi yàlla gën a yokk sutura ah ñu nekk nag ci benn weer bu ñuy wax mois de mars mois de mars ku ko tudd di nga tudd jigéen waaye jigéen malgré bu fekkee mi ngi xëccu pour dem ci bitti pour am loo xamante ni bi àqam la war na bàyyi yeneen àq yi yàlla gàll ci loosam damay faral di wax ne góor ñi yàlla jigéen ñi la dénk alal ji ci kër yi yàlla jigéen ñi la ko dénk njaboot yi ci kër gi yàlla jigéen ñi la ko dénk toppatoo sa boroom kër nag dafa bokk ci jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn jigéen bu ñëw ni ko dama bëgg dem aji màkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ajal ci sa borom kër keneen ñëw ne ko dama bëgg a dem euh, jihaati ci yoonu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ci sa borom kër ngay jihaate naka la ñuy jihaate rek ci sa borom kër mooy xusnu tabaarul mooy mokk pooj sëy sëy rafet moom la ñuy tabas moom la ñuy euh, euh, ci sa borom kër léegi nag mu am xewit bu xew boo xamante ni bii lislaam doonu ci dara suñu réew doonu ci dara suñu ayee réew du ci dara suñu jukko réew du ci dara mooy lan mooy góor ñu bari ñu ngi souffrir ci seen biir néegu sëy góor ñu bàyyi ñu ngi souffrir ci seen biiru néegu sëy pour jege seen soxna te loolu yonent bi saa sallam dafa wax ni bépp soxna boo xam ne sa borom kër fanaan na fanaan gi mu fanaan te li tax mu fanaan mooy dafa la fanaanee mere ba bët set yàlla mi ngi lay rëbb ba bët set kon ngallaawaay nañu bàyyi xel ci jox jigéen jigéen ñi jox góor ñi jëkkër yi seen li ñu moom ci ñoom réew maa ngi bëgg a tas te li koy bëgg a tas mooy musuwaar yi mbokk yi. am sa borom kër mu lay soxla ndax da ngay liggéey tax nga ni duma ma séq ak moom li ma war a séq ak moom te mooy bu ma soxlaa naa ko tegal musuwaar bu musuwaar bi xonqee mu xam ni tey jii du ma mën a am su musuwaar bi weexee mën na am su ñuulee il faut mu négocier pour am loolu nañ ci seetaat suñu digganteeg suñu borom yonent bi salaa sallam dafa wax ni sëy diggante jëkkër la ak jabar góor ñu bari dañoo signé monogamie dëkk ci coono. nañu xoolaat suñu digganteeg àq boobu ñi signé monogamie ñi signé polygamie jigéen ñi ci biir kër yi digganteeg sëy yi loolu dama koy junj pour jigéen ñi bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane na sëy bu fekkente ni bi ku jigéen ki mën na na teel a xamal ne man na su mënul na teel a xam ne li mënul bu woppee lañ koy tere waaye sa biir jabaru bopp ci l'islam ñu ne danga ko violé parce que tànnul d'accord ci yooyu du lislaam du lu kenn xam nañu rafetal diggante yi sëy ngir yàlla sëy ngir liñu ñu dénk jigéen ñi sëy ngir li nga xamante ni bi mooy yiw wi ñu war mën a wuti ci suñu borom yonent bi saa sallam wax na benn bis mu ni jigéen jigéen góor mën na am tuyaaba ci biir këram jigéen mën na am tuyaaba ci biir këram ndax bu góor wutee jigéen feneen muy bàkkaar bu jigéen wutee góor feneen muy bàkkaar kon nañu wutante te rafetal ànd bi yàlla na nu yàlla defal tawfiq jigéen ñi gën a bàyyiwaal xel seen bopp xam ne lu ñuy wuti ci àll ba ci ci wërsëg mën nañu wut tuyaaba ju toll noonu ci biir kër gi loolu mooy fàttali bi yàlla na nu yàlla defal tawfiqam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Issa Mor euh, ci loolu nga développé léegi waxoon nañ ko ci njëlbeen ji danoo waroon a commencé sax euh, sargal jigéen ñi ci li nga xam mooy bis bi nu génn bis bi nga génn xam ni yaay yu nekk sonn na ci yaay yu nekk daj na ci lu ne pour doomam egsi fi mu war a egsi bis yoo xam ni yaay bàyyi na guddi bàyyi bëccëg yor doom bis yoo xam ni yaay dem na ba màggale fekkewu ko bis yoo xam ni yaay màggale na te gisul doom mu ni meng ci àll bi ànd ak ñam war a àndal wala bu ànd ak jabaram dem teggeeyu li nga xam mooy ay wajuram kon bis bi bala ñuy commencé dañuy commencé à tout seigneur tout honneur Adja Binta ci bis bi bala ñëw ci xutba bi dégg nga li mu wax góor ñi baax na jigéen ñi waaye def wa wàccoog seen waru goru euh, borom kër. ah nee nañu de sa borom kër mun na laa jàllale àjjana du loolu la ñu wax kon jaamu baax na. sa borom kër soxla la am ci ay jafe-jafe ah bu nga nekkee seen biir néeg mu ne nga nekk si jafe-jafe defe naa loolu lislaam santaane ko di tax nag nga di ko def moo ko xam moo xam lu muy daj moom itam soxna si si biir néegam moo ko xam waaye lépp daal ci waxtaan la war a mujj man sax lu ma si gën a jaaxal mooy lu ustaas indi mouchoir yi mu wax loolu daal jaaxal na ma ustaas loolu moom musiba naaru laay weesu waaw yor mel ni ku yor fa rouge di taali oto di taali di teggi musuwaar euh, oustaz Pape yàlla xam na ni euh, man euh, musuwaar yooyu man ko dóor di man daal man daal ndekete nandite laa defoon sama bopp mais naka ne man héehée dëgg la man naka ne man xaw ma li xew man tey laa xam ni man man Pape man vrai héehée laa man naka ne xaw ma li xew ndax Assane àjjuma ju jot mu indi loo xam ni maa ngi koy dóor dégg man ay waxi musuwaar feu rouge musuwaar bu xonk bi mooy tey du baax bu weex bi mooy tey dina baax bu ñuul bi il faut nga négocier. pour guddi gi baax. man daal yàlla xam na ni maa ngi koy door a dégg loolu. jërëjëf yàlla bu dal yàlla bu yàlla bu ma dal daal. góor gis moom euh, Oustaz ci lu ci lu gàtt rek ñëw waru garu jigéen ak. <laughs> dafa teel papa <laughs> xam nga Binta jëf ko junj. même bi sallallahu alayhi nee ne su ma doon digal nit muy sujootal nit jigéen laay digal mu sujootal borom këram. su jootal nit su daganoon jigéen laay digal mu sujootal boroom këram ndax lan. importance bi nga xamante ni borom kër am na ko ci ki nga xamante ni moom moo di soxnaam parce que tamit bu ñu fàtte ne ay jullit lañ dafa am loo xamante ni moom mooy suñu base muy alquran ak wax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te jullit bu nekk war ngay fexe di sàmmunte ak alquran ak sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ci njàmbaas rek ba si kanam ndax lii la ñu yaatal la si musuwaar yi si kanam incha allah euh, mbokk yi defe naa ni mi ngi noonu wax nañ ko léegi Chérif dégg nga dégg nga jigéen ñi par rapport ak seen kii bala bala ñu ñëw ci journal bi jigéen ñi seen digganteeg seen borom kër am nañu journée waaye ñu xalaat ci góor ñi tamit ci la bokk defe naa am nga ci xalaat. waaw li euh, doyen ni nga waxee noonu la parce que àdduna moom ñaar a ko yor surtout bu tawee bu demee ni lu jëm ci wàllu couple ndax euh, ñi nga xamante ñoom ñooy jigéen ñi ñoom it euh, kenn mënu leen a fay. Mhm. ñu ngi doon wax waxu ay mosuwaar wante tamit yaakaar naa ni jigéen xëy na bu melee benn melokaan bi. est-ce que du responsable bi aussi nekkul ca ko góor ko parce que bu ñu jël lépp rek teg ko mhm. soxna si parce que comme ñoom ñaar ñoo nekk te ni naan néeg dafa xat xëy na yenn saa yi aussi am na góor ñoo xamante ne la leen war duñ ko def ba yenn saa yi jafe-jafe war leen a fekk seen biir couple mais tamit am na solo solo goo xamante ni aussi c'est important moo tax dañ koy saluer parce que yooyu ay tableau yoo xamante ni nit ñi dañ koy denc rek yéen ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu diine c'est très important ngeen ci yee askan comme ni ko Oustaz Mor waxee sànq ba nga xamante képp kuy dund bi nga mën a xam yooyu réalité mu bañ a nekk rek lu ñu denc ci nekk mais ñu génne ko partagé ko ngir solution yi ñu mën ko trouver. ñu ko trouver profité ci occasion bi rek di ñaax sama mbokk jigéen ñi nga xamante ni dañu am ay borom këru nasaraan parce que tam dafa am yenn réalité yoo xamante ni même suñ koy wax ñun dañu ciy génne maanaam ñun ñi nga xamante ni dañoo am jëkkëru nasaraan bokkuñu ci yenn règle yi ñuy kii te man gis naa ni góor góor rek la muy bu nasaraan bi bu bu sénégalais bi ku ñëw ba dugg sa diine di ko pratiquer je pense bu ñuy am ay amul ay xaajaloo wala ay ay euh, luñ loo xamante ni ay sens interdit lay am mm-hmm. donc li ngay defal sa jëkkëru sénégalais wala sa jëkkër africain moom nga war a defal sa jëkkëru nasaraan amul mm-hmm. benn xaj ak benn seen mm-hmm. donc man foofu rek laay laay laay xam ni jëkkëru sénégalais ba lay dugal àjjana àjjana ak jëkkëru nasaraan ma nga lay dugal àjjana yëpp benn la. kiif kiif. jërëjëf mbokk yi defe naa ni loolu mooy li nga xam ni mooy tem bi nu indi tey waxtaan la woo xam ne dañ ci sóobu incha allah bu ci kaname mais di nuyu sama wajuru jigéen euh, Adja Mame Fama Diop mi ngi may mi ngi may seetaan di ko ñaanal fanu gudd ak yaay yëpp di ñi nga xam ni aussi ñi ngi ci lali hôpitaux yi ñu leen di ñaanal di wax rek góor ñi war nañu am solo parce que góor it ànd ak jigéen mu néew doole nga dem bàyyi ko nampal juróomi doom ah. ay kawasam ay ay ay ay ay weenam wàcc lax ba mel ni yu yuñ teg feer bu tàng nga bàyyi ko fa dem wuti keneen naan maa nga àjjanaak ma maa nga fir daw seek maa nga euh, daaru mi na mag lu ne nga dugg ci lu ne nga koy wax tamit loolu du ngor ngor it bokkul ci jël jigéen ànd ak moom jël keneen teg ko ci wetam abandonné ko bàyyi ko ak njabootam doo joteeg moom doo wax ak moom loolu bokkul ci lu muy def jël jigéen xooññe ñental ko ko mu def la dara nga génn ni ko dama koy won ni tey jii maag maa ko gën di saay-saay ay saay-saay ay bari rek mhm. na xoñ nañ tal mere ko boo ko waree jox wala boo waree wax ak moom jéppi ko di ko jànni toroxal ko wala boog li gën a metti moo dóor ko wala xas ko ci kanami doomam mhm. jigéen ñi tamit euh, lii yéen kenn du yéen parce que léeg-léeg ngeen def góor li léegi góor dégg baat boo xam ni bu xëyee bu sañoon du ñibbisi ndax baat bu mitti te mag ñi ne noonu Adja Xaar Mbay moo ko wax maa ngi koy euh, gërëm di ko sant nee na neex gongo neex tontoo ko gën ñooñ ginaar jàmm ko gën baat la góor am nan ko bàyyi ak baatam mbokk yi loolu mooy li nga xam ne moom lañ indi góor ñu góorgóorlu jigéen ñu góorgóorlu ñu am njaboot gu barkeel yor mag yor ndey yor bàyyi jëmale leen ñu jaamu jaamu yàlla bu am solo loolu ci la bokk waaye léeg-léegi nga gis jigéen joo xam ni na mu def jëkkëram jëba boo gisee am na jë yu yoo xam ne danaan day julli baaraamu jabar bu ca dëkk tax mu ñuul kuk kuk ba kenn mënu koo xamee kon mbokk téléspectateur yi ñu àgg ci li nga xam ne mooy information ndax foofu la ñu bokk ñu ànd ak Chérif Dia tey waxtaan waxtaan moom Chérif euh, maa ngi lay nuyu tey lu bopp xëy lu nu indi ci ci ci journaux yi. waa journaux yi doyen dañ koy tàmbale ak yéen kaay bii di l'observateur def benn gëstu bu yaatu ci meeru Ndakaaru Khalifa Sall. Euh, ni mu taxawee nag ci biir parti socialiste risque yi mu ko mën a jural ndax bu parti bi jaaree fii moom mu jaar fee ba tax sax yenn kaay bi daal di jox kàddu bu saanee xam-xamam màcc ci wàllu politique moom daf ne xalifa Sall dafa war a yemale rek ay bëgg-bëggam ci biir parti bi xam fante yam bala mu ko jural leneen jox na kàddu gi te El Hadj Malick Sy Souly nekk conseil spécial président Macky Sall moom nee na laïcité bi dañ ko war a génne rek ci constitution bi wax na tamit ci Aliou Cissé mi jàpp ni apprenti Euh, apprenti entraîneur la ba léegi ci li nga xamante ni moom mooy yéenekaay yi journal bii di la Populaire moom dafa ñëw rek ci nawetaan yi ak ki ko jiite di Amadou Kane ñoom nee nañ wii la ñu voté ndax daal gis nañ seen bopp ci lu ni mel ndax lii di CNR yi ba ñu amal seen consultation yi ñoom wii la waxoon comme Amadou Kane it daal dina ciy dellusi Idrissa sa it tontu Macky Sall rek ci wàllu nee na daal référendum du mbiram làmb ba tax président Macky Sall di samp ndëndam ak yu ba léegi ci wàllu constitution ak tamit révision bi kii di Seydou Madani Sy nekkoon fii ki nga xamante ni moom lañ dénk wàllu yoon fii ci Sénégal moom daal yéenekaay bi jàpp na ni gis-gisam ci révision boobu ak wàllu constitution nee na daal moom dafa xaw a waxu ci lu leer ba tax daal ambiguïté boobu la ñëw ak benn jeu de mots ñëw na tamit ci li greffe yi ak journée bi ñu jagleloon wàllu insuffisance rénale yéenekaay bi wax tamit riiroo bi am ci yi tekki Mamadou Lamine Diallo ak yor kàddu parti bi bokkun gis-gis yi taxawaay ci wàllu référendum boobu Mansour euh, Faye moom nekk maire Ndar nekk tamit euh, ministre moom dellusiwaat na tamit euh, ci li nga xamante ni moom mooy référendum bi daal di wax ci opposition bi taxawaay bi ñu am moom daal yéenekaay bi nee na mi ngi fëgg dënnam ci moom Mansour Faye Amadou Kanit jox na ko kàddu mu ne wax waaw taxul ne ñoom Macky Sall lan àndal. ba léegi ñu ñëw ci yéenekaay bi di Grand Place moom ñëw na ci jafe-jafe am ci Sonatel ak tamit di naan externalisation ba ba tax personal bi di di di daal di ñaxtu Adja Sy nekk administratrice Grand euh, Place du Souvenir moom nee na statut de l'opposition boobu rek waroon naa tax opposition bi daal di voté waaw ci référendum bi Idrissa Seck nee na référendum du làmb yéen kaay bii di direct info jox kàddu gi rek Amadou Ba xam ngeen ni responsable politique la fële ca Parcelles Assainies moom neena daal gañe rek wala naax saay ci foofa ci référendum boobu Cheikh Kanté moom def na kéemtalaay kàttanam ba waaw gi nar a gañe ñu ñëw ci l'enquête moom nag dafa ñëw rek ci négociation yi dox ci diggante gouvernement bi ak syndicat d'enseignants yi ba tax nee na échec la lajj na parce que démb ban dajee waxtaan mu déggoo mujjut am ba tax Amadou Ba moom nee lu toll ci fukki ci ay milliards leen ko jël jox ko enseignants yi ci wàllu seen rappel yéen kaay bii di tribune moom dellu si ci jafe-jafe wàllu yoon bi doomu Thione Seck am di Seydina Alioune Seck ba tax na avocat bii di David Viradi moom nee na daal ki nga xamante ni moom mooy Seydina Alioune Seck liñ ko tuumaal dara amu ci te moom day koo xamante ni daal. loxoom dafa seet yaru na ba tax moom dafa ñëw fii ci senegal lañ ngir seetal deru xale bu góor boobu ñu jeexale ko ak yéenekaay bii di Libération dellusi ci jafe-jafe yi am ci diggante état du Sénégal Karim Wade ak Bibo Bourgi ñetti parti yooyu nag danoon daje ca Paris ci fukki fan ak ñett ci weeru avril bi ngir ñu leeral seeni mbir jox na kàddu gi Idrissa Seck nee na lii di référendum du wàllu làmb kon doyen lii lañ leen mën a tënkal ci euh, revue des titres yi Mamadou Mouhamed Ndiaye dina ko yaatal incha allah fii ak 10 heures. jërëjëf euh, Chérif ci li nga xam euh, Chérif kon ñu ànd ci tey dafa xëy xaw a ngelaw tey xaw a seen tuuti. ma doon jox bokk tey nu mu mën a def tey ci bis bi ndax bëccëg beeg yooyu météo bi. waaw météo gi tamit xam naa rek ci appalaay la ñu ànd ak mu daal di ñuy wan température yi. bu ko defee ñëpp ñu ci yëngatu mën ko xam gis ngeen ni ndakaaru tey xaw naa taneen di ndax ñu ngi ci 21 degré Saint-Louis mi ngi ci fukki degré ak juróom-ñeent Podor ñaar fukki degré maatam ñaar fukki degré ak ñaar Linguère ñaar fukki degré ak benn Diourbel ñaar fukki degré Kaolack ñaar fukki degré Ziguinchor fukki degré ak juróom-ñeent Kolda fukki degré ak juróom-ñett Kédougou fukki degré ak juróom-ñeent ak euh, Tambacounda fukki degré ak juróom-ñeent kon lii moom mooy température suba si ñu dem ci température ngoon si Ndakaaru dina dem ba ñaar fukki degré ak euh, juróom-ñett Saint-Louis ñaar fukki fanweeri degré ak juróom Podor fanweeri degré ak juróom-ñeent Matam fukki degré ak benn Linguère ñaar fukki degré Diourbel fanweeri degré ak juróom-ñett Kaolack fanweeri degré ak juróom-ñaar Ziguinchor fanweeri degré ak juróom-benn. fanweeri degré ak juróom-benn nit la ñu nemmeeku ca Kolda Tamba dinañ am fanweeri degré ak juróom-ñaar Matam fanweeri degré ñeent fukki degré ak benn kon li moom mooy température ngoon si bu dee nag wàllu mare yi la bu njëkk bi mënoon koo jàpp fukki waxtu bu tegalee. lii di euh, fanweeri simili ak juróom-benn bu dee nag euh, marée basse bi bu njëkk bi bu 4 heures jàpp 30 4 heures la bu dee nag euh, deuxième marée haute bi dinañ ko jàpp 22 heures 55 ñaareel bi 16 heures 36 35 plutôt. bu dee nag wàllu napp gi la jamono yi gën a neex nag ci wàllu napp gi mënoon koo jàpp 3 heures du matin ba jàpp 5 heures 8 minutes. ñaareel bi nekk 15 heures 38 minutes ba 17 heures 38 lever du soleil jant bi nag kon mën nañu jàpp ni rek dina fenk bu 7 heures tegale fukki minutes ak juróom-ñeent nara soo bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon tegale fukki minutes ak juróom-ñeent. kon doyen li lañ leen mën a tënkal ci rek météo bi ak température kon moo ni xaw naa tane yi xaw naa tane aslëf kon ñoo kon ñu pare kon xam naa bu ci kanamee huit heures nga dellu si. incha allah incha allah huit heures nga dellu si ci xabaar yi gën a yaatu. ñu jox leen euh, li nga xam ni mooy euh, waxtu julli yi ci suba gi mi ngi nekk ci juróom-benn waxtu bu tegalee fukki simili euh, tisbaar nekk treize heures vingt minutes. Takusaan nekk 16h42 minutes timis nekk 19h25 minutes Géewe nekk 20h27 minutes. mbokk yi loolu mooy li nga xam ni moom lañ indi woon xam naa ni Apulaay dafa fàtte indi julli yi nga xam ne moo am ci jàngu yi beneen yoon dina ko indi ndax ñi ngi ci paak ji te xam naa ni ñi ngi ko loolu dañ ko def mbokk yi kon ñu dem ci xutba bi xutba bi nga xam ni moom la ñu amal tey ñu déglu euh, ki nu ustaas indil. saa sax ñu ngi lay yàlla yal na yàlla barkal seen liggéey ci biir ak ci bitti euh, mbokk yi euh, waxtaan bi nga xam ne. waxtaan nañ ko tey muy waxtaan bu am solo waxtaan yi nga xamante ne euh, jëriñu àdduna ak àllaaxir dafa jëm ci mbir moomu muy al ñu muy kóolute mu wóor ndax mbokk yi bu ñu seetloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam li nga xam ne moom lañu ñu alquran wax ne in tutiuhu tahtadu soo leen ko toppee di ngeen jub yonent boobu yàlla dafa ko dimbali woon mu nekkoon njiitu réew yàlla dimbali woon ko mu nekkoon imam bi yàlla dimbali woon ko mu nekkoon eh, jàngalekat bi yàlla dimbali woon ko mu nekkoon mboolim xeetu ndombal tànk wala responsabilité bu doomu aadama war a yor moom muy woon ci mbagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gàddu waaye mbokk yi boo seetloo moom sallallahu alayhi wa sallam dund bi mu dund ak ay noonam dund ko ak ay ñu ko bay ñoo xam ne gëmmuñu ko soppuñu ko bëgguñu ko te mu dul doon ak ñoom jàmm ba ñoom ñëpp seedeel ko benn seede seede boobu rek la ñuy laaj bu ñu xamee seede boobu rek dañuy xam ne ne lu doomu aadama am ci kaw suuf te amoon al amaana amoo dara ban seede la mooy ñoom ñoo ko tuddee Muhammadul Amin gis nga Muhammadul Amin maanaam kii nga xam ne moom mooy ku wóor ki kon euh, pour société dox pour àdduna mën a jakk pour l'islam jakk pour jàmm am paix am ci biir dëkk bi ci diggante ay noonu ren rek moom la ñu mën a saxal pour loolu mën a am du benn baat bu dul al amaana maanaam nekk lu wóor nekk koo xam ne nit ku wóor ngay doon say wax dëppoo ak say jëf say jëf dëppoo ak say wax lépp loo xamante ne sumb nga ko séq ko nit mu nekk lu wóor mbokk yi bu ñu seetloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy dem di def gàddaayam bu rëy ba xam nga euh, ay ay noonam ñoo ko dénkoon alal <laughs> ñoo xamante ne gëmuñu ko ba pare dénk ko alal ba pare yéene ko rey guddi ñu fanaan ci buntu këram yor ay jaas yi pour rey ko moom nag ci guddi gi ñoom ñu ngi talla fanaan lu koy rey moom mu ngi talla fanaan pour dëggal wóor kóor te mu fanaan fanaan dëggal ko dëggal gi mooy mu woo seen Alioune karamallahu wajhahu mu ne ko Alioune mu ne mu ne ko ah, sa baay diw de bokk na ci ñi ma yéen a rey waaye ñoom moom moom cinq millions yi sa bàyyi diw bokk na ci ñu may yéen a rey mais moom moom moom vingt millions yi sa de bokk na ci ñu ma rey mais moom moomu dénkoon nangam sa bàyyi diw de bokk na ci ñi ma mënoon a rey waaye moo ma waxoon kàddu sàngam nag ko teel kàddu bi nag soo xëyee na nga ko leeralal est que kon ñu doon sax sam ñee ngi jël am yitte yi rey ko moom mu ngi am yitte yi jël dëggal baatu wax kon mbokk yi euh, wóor amaana day tax doomu aadama bi nekk nit ku dal société bi nekk société bu dal li muy jur nag ci ci ci ci ñaawteef li muy jur ci ay yàqu-yàqu mooy fi leen yàlla classé gis nga ñàkk wóor fi ko yàlla classé foofu dafa metti ki wóorul ku amul amaana dafay nekk li xale li nit ñi di wax nit ku fóow nit koo xamante ne la ngay feeñal fekkul ne moom ngay dund fekkul ne moom nga soo ñëwee wax ji day neex ku rek ku lu man yatamal laxu ko yat maaw fiik arab nee na képp ku ñëw dina si booru am na lenn lu mu soxla su ko soxlaa rek mën na laa wan ginnaaw loolu bokkul ci jukko yu jullit ñëw ci yow wax ji neex colin bi neex colin bi rafet lool wax ji neex lool mais mu ngi bëgg rek fexe ba ni nga ko wóoroo boo ko wóoroo ba dénk ko mu jël loolu mu mu war la ci te mbokk yi am na benn baat boo xam ne ñu baal ma rek xew na ngeen baal ma TFM ñu ngi koy wax boo ñëwee ci daara ji ñu ngi koy wax boo demee ci politique bi ñu ngi koy wax boo demee ci lislaam ñu ngi koy wax fépp ñu nga mooy baatu day dóor di nit day dóor dóorkat gis nga baatu dóor kat léegi amatul valeur parce que dóor kat muy jikko ju bon ba pare ñu jël ko léegi def ko mu nekk fowukaay ah koo xam naa kooku de day dóor rek maanaam day dóor rek day dóor rek dóor rek dem na ba nekk day dóor moom nekk na loo xamante ne miin nañ ko ba garaawatul te dóor kat pire mooy koo xam ne mu ngi ñëw ci yow di la wax lu tax nga ko di jéem ci yow lu tax pour mën a am lu mu récupéré ci yow soo su récupéré loolu rek ay wax moom moom moom noonu laa ko déggee moom euh, gisatoo ko te loolu ku ñàkk amaana rek moom moo koy def wasalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi gërëm oustaz Babacar Niang di ko ñaanal jàmm di ko félicité bu baax di nekk koo xam day collaborer day collaborer ak ki nga xam mooy groupe Futurs média di ko ziar bu baax di ziar sëriñam sëñ Maodo si sunu sëriñ sunu xarit sunu soppee mbokk yi mi ngi noonu ñu ñu ngi dugg ci ki nga xam mooy sunu invité tey muy Diatou ñëpp xam ko di Diatou Cissé nit koo xam ni la ku farlu la ci wàllu taxawaay ci wàllu métier bi mu nekk muy wàllu wàllu tas xabaar xamoon nañ ko mu nekk Simpix am ci liggéey bu rëy bu mu fa liggéey waaye balaa loolu jut yëpp gisoon nañ ko ci fi mu jaar RTS xam ni nit koo xam dafa sàmmoon teg li nga xam ni mooy li ñuy wax ci lii les préalable mooy éthique déontologie ci li nga xaal mooy wàllu taskatu xabaar ku ci taxaw la am ci pas pas bu am solo ba tax na correct bi mu amee am na ci rôle bu mu ci doon joué ci taxawaay yooyu ñu koy jàngat tey ñu ànd tey ñu dalal ko xam ngeen ni ñu ngi ci bis bi ñu génn muy bisu jigéen ñi wax nañ ci léegi ci début bi kon ñu dalal ko di ko nuyu di ko sant ci teelu jug gi xam naa ni moom it ku xaw a teg tànkam la ci affaire yi gëm liggéey bi moo tax mu teel yow aya ñu ngi lay nuyu waa jërëjëf Aziz maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara yéen ñëpp euh, di la gërëm aussi ci seede bi nga def ci man mm. ndax loolu tamit xëy na xamal nit lu baax tamit wax ko ko loolu ci générosité la bokk mm. ndax mënoon nga ko bañ a <laughs> maa ngi leen di sant yéen ñëpp. jërëjëf euh, ñu ñëw ci ñu ngi génn ci <clears throat> euh, euh, journée de la femme jàngat parce que buñ ci génnee rek Sénégal bu buñ ci génnee danaan danoo génn ci nangam dugg ci. Mm-hmm. waaye buñ ci génnee day mel ni danoo fàttali ñu waxoon. Mm-hmm. ko bu ko doon xayma ak liñ ci ci jaar ci fi nga ci liggéey ba bi nu egsi fii ban jàngat nga ñuy def tey ci li nga xam ne mooy moom lañ ci xam tey ci bis bi journée de la femme. waaw journée de la femme moom man bu ma koy wax. Euh, balaa may wax jigéen ñi wala fu ñu dem damay sargal góor ñi nga xam ne am nañu yërmande si jigéen ñi Euh, am nañu ndimbal si jigéen ñi parce que man journaliste la tey dinaa rendre hommage sama càmmañ bu fi nekkatul ñu koy wax Ibrahima Fall. Mhm. mu nekkoon journalist bu bari yërmande si jigéen man bu ma àndoon nag moom fenn voyager euh, presque dafa ma doon reewal moo ma doon toppatoo moo ma doon defal yëpp dafa génn àdduna ci lu yàgg euh, yàlla na ko yàlla yërëm donc gëm naa ne am na góor ñu am yërmande yu am taxawaay bu farlu ci kanamu jigéen yi moo xam mu nekk seeni soxna mu ñoo xam ñu nekk seeni jigéen ñoo xam ñu nekk seeni yaay loolu moom firn mun naa ko firndeel man euh, leneen li ma si wax mooy ne euh, léeg-léeg dañ naan journée de la femme journée de la femme mais képp ku fi yore soxna sa kër wala nga nekk ak sa yaay wala nga nekk ak sa mag rek xam nga ne jigéen suba soo xëyee war nañ ko sargal ma commencé ko nag ci jigéen ñi nekk ci kër yi parce que ñooñu li leen dal dafa metti léelée léeg da ngay wax ak euh, góor sama càmm ñi léeg ma am ñu ma ci waxal ndax dama bari ay xarit yu jiyee kii noo jatu xam nga li ma sonal man soxna si min ci kër ga liggéeyul xam nga aw ma ku ma jàppale jàppale na la bu baax parce que li ngay gagné di ko indi dépense ñu sakkanal la ko toggalal la ko lu neex nga lekk soo wàccee fekk kër gi set xale yi set ne douche ba nga sangoo woon fekk ñu defar ko ba mu baax lonkal la sa serviette fi ñu ko war a lonk tegal la say dàll nga ñëw sol loolu ndimbal la mhm. ndimbal bu rëy la contribution bu rëy la ci équilibre góor ñi ci équilibre famille yi parce que ñoo ñi tamit waruñoo jàpp ne parce que indiwuñu koom seen loxo duggul ci kër yi seen taxawaay kenn mënu koo valoriser euh, leneen li si des mooy ne 8 euh, mars moom jour ne taxaw rek natt la natt jéego yi fan la ñu jógee fan la ñu toll fan la ñu bëgg a jëm donc loolu je pense que lu am importance léegi nag dafa am lu ma ci xaw a gis ñu commencé di ko def mu may bëgg a jaaxal tuuti dama gis ne dañ koy bëgg a commencé folkloriser damay gis ñu commencé jigéen ñi nëroole ay yére dugg génn baax na sax ci sargel bi la baax mais su ma sañoon daal dañ koy delloo na mu meloon teg ko bés boo xam ne dañuy natt seet suñu toogaay si askan bi euh, lan lan si tax xaw lan mooy sunu jéego lan la ñuy xaar ci askan bi lan la ñuy xaar ci état bi euh, bu ko defee ñu mën koo tënk jéebaane ko liggéey si bokk ko nag liggéey ànd góor ñi ak jigéen ñi liggéey man li ma gëm mooy ne suñu bëggee wax ay question d'égalité ak question nekku jigéen ñi danoo tàmm ñun jatu ñi di tëj suñu biir di ko waxante waaye waxtaan moom boo ko waxul ak ñu ngi ko séqal rek du avancé mm. donc il faut ñu am ay stratégie yoo xam ne dañuy ñodd suñu càmmiñ yi aussi di waxtaan ak ñoom ndax mbir mi mbirum société la ñoo ko bokk société bi bu demee bay dox ñaari tànkam tànku ndijjooram ak tànku càmmiñam loolu mooy góor ñi jigéen ñi suñu njariñ la ñun askan bi yëpp ak njaboot gi. bala ma lay bàyyi ak Adja Bint ak oustaz si ñu ko seqal. Mm-hmm. dafa am benn taxaw seetlu boo xam ne dama ko ci def. ci mm-hmm. wàllu jigéen ñi damay gis ni bu dee fii rek la ci les femmes urbaines la ñu yem. Mm-hmm. ak nekk ci rajo yi di ko wax. boo demee ci àll bi la femme rural ba tey ma ngay rooti. ma ngay xëcc. ba tey amagul euh, électricité. moom ba tey wol. ma ngi koy def. ci ay anam yu jafe jafe jafe te ñi nekk ci taax yi di ko wax rek te ñoom ña ca suñu gisuñu bopp. li ci méngool li ma ci wax nag mooy décentralisation bi ñuy wax ak la ca war a àgg. yooyu yëpp moo xam ni dafa sooxeel yëfu jigéen tey jii yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci taax yi ak yéen ñi yàlla may ngeen soog ci rajo yi di ak télévision yi di waxtaan ban jàngat ngeen mën a am ci jigéen jooju nga xam ni ma nga foofa te njóobeen Samba laa ma tey tey toog toog te bu xëyee. day day day day day day day dem jukki ji. te loolu am na solo. bu dee faju dafay jóge. bis bu ne jigéen ñàkk bakkanam ci. bu bëggee joxe bu bëggee am am doom. ci condition de travail yi mu fi ñu koy defee ak fi muy amee. xaw a jafe hôpital bi taseeg fii case de santé bi baaxatul wala ñu amul sax amul case de santé loolu lan nga ci wax ci taxawaay boobu ak lan ban jéego nga foog ñu war nañ ko ci def wala ma lay bàyyi euh, gis nga Abdoul Aziz jigéen ñi ñun li ñu lëkkale mooy jigéen bi nekk Amérique jigéen bi nekk Sénégal ki nekk ci taax yi ki nekk ci tool yi li ñu lëkkale yépp mooy ne ñun jigéen lañu yaay lañu mm-hmm. dañuy taxaw ci kër gi loolu mooy maanaam li tubaab di wax suñu dénominateur commun euh, dëgg la coow li ci taax yi la gën a fese mm-hmm. mais li ma la mën a leeral Aziz mooy ne jigéen ñu bari ñi ngay dégg fii ci rajo yi li ñuy wax yépp dañuy dem roote ko ci ñi euh, ci euh, dëkku kaw gi boo jëlee par exemple euh, maa ngi rendre hommage aussi sama mag sama xarit ñoom Marie Delphine Ndiaye lu bokk ci jigéen ñi mën a jot ci tool yi mën a jot ci intrant yi mën a bay comme góor ñi ñoom dañ siy liggéey lu bare te am na ay proposition yu bare yu ñu doon def ci commité de réforme foncière pour jigéen ñi mën a jot ci tool yi man mii di wax ak yow jatu en 1988 ma nekk jeune journaliste yaakaar naa ne ci journaliste yi jëkk def documentaire ci mortalité maternelle la conspiration du silence laa ko tudde woon halte à la conspiration du silence mhm. boobu temps dem naa fu bari dem naa ay Loul Sessène dem naa ay Kolda dem naa fu nekk xool jigéen ñi ñu nekk ba débat bi egsi fii euh, tey boo xoolee tamit ci mbirum taxawaayu politique boo jëlee kuréel yu demee ne caucus des femmes leaders man mi ci formatrice yi laa bokkoon bi ñu xamee ne élection yaa ngi bëgg a ñëw te wax nañu parité bi mhm. dañoo wàcc dugg si dugg si dëkk bi dem nañu fu ne Tamba Kolda fu nekk dem nañ fa seet jigéen ñi nga xam ne day seen taxawaay dafa dëgëroon au niveau local ñun ku nekk ci sa xam-xam man si wàllu communication keneen si wàllam ñun ñëpp dugal nañ leen si ay lël tàgg leen wax leen nan la ñuy positionné wu nan la ñuy laaje baasu askan bi nan la ñuy def ba ñot di soxla askan bi góor ñi ak jigéen ñëpp nag seeni soxla parce que boo taxawalee askan bi rek dangay ngay taxawal góor taxawal jigéen taxawal ndaw liggéey nañ si moo tax dama bëgg a wax ne c'est vrai loo gis dafa am locomotive suñu demee si dëkku kaw yi ba taataan li fa am dafa am nag mouvement boo gis dafa am ay port voix peut-être ñun ñoo jàng ñun ñoo jot si micro yi ñun bu ñu demee dëkklu foofu mën na noo théoriser bu ñu ñëwee ñun ñoo koy théoriser si rajo yi boo xoolee par exemple léegi euh, affaire xarafalu jigéen ñi def nañ si ay ay jéego mm. boo xoolee fistili maanaam jigéen ñi nga xam ne bu ñu amoon doom noonu après léeg-léeg doom bi am na nu muy ñëwee te mu gënoon bari ci jigéen ñi nuy xarfal euh, seen paftan dafay toj dootuñu mën a denc seen saw wala seen ginnaaw kër léegi dafa am ay opération yu bari yu ñuy lancer ay campagne yu bari di leen fekk fa ñu nekk di leen réparer entre guillemets parce que noonu la ko médecin yi tuddee loolu yëpp soo gisee mu siiw ñiy dem ci base bi mën a jot si rajo yi di ko di ko di ko di ko di ko wasaare loolu moo tax préoccupation yëpp ñu jot ko donc di dalal seen xel rek ñoom jatoo yore wax ji mais ñoom jatu balaa ñoo wax dañuy dem dëglu ñi ca tool ya léeg-léeg diisoog ñoom te ci tool yi nag jara naw mhm. wallaay boo demee si dëkku kaw yi ba dëglu jigéen ñi ba ñu teg seen gopp yooyu wax ak yow mhm. ñoo la gën a mën a diagnostiquer seen problème ñoo la gën a mën a systématiser seen solution ñoo la gën a am moo ñu koy rendre donc ñoom tamit ñu jara sargal lañu mais na sa xel dal ñun ñëpp benn chaîne bi lañu waaye dafa am parcours bi ku nekk rek ak fi nga toll ak fi ngay fi ngay waxee. Euh, Binta ma bàyyi la. Euh, Jatu man euh, maa ngi lay remercier déjà li nga ñëw uyu si ñu ci. mois de la femme bi le mhm. euh, mois de mars mhm. man la mon problème c'est c'est la parité mhm. c'est vrai que bi ñu koy jël ñëpp nee nañu c'était une décision politique parce que jigéen ñi ñëw ëpp ci électorat bi mais man euh, d'accord naa aussi si lu ñu doon wax na parité compétence moo ko gën mais quand on bu ñu demee si au niveau des entreprises wala au niveau des services dañuy gis ne jigéen ñi dañ fay nekk compétent ba dee mais kenn du leen responsabiliser. Mm-hmm. surtout dans les maisons de presse. Absolument. je pense que du ñu jiital compétence dañuy mm-hmm. jiital copinage. Mm-hmm. bëri na ci maison de presse yëpp. boo fa dugg doo gis benn jigéen instance de décision. est-ce que ban si nga nga ngay def ci loolu. waaw loolu moom euh, dañu ko tënk ci àdduna bi yëpp. maanaam li ñuy wax la plafond de verre xam nga fii gis nañ plafond bi gis nañu ne dafa am ay couleur rafet. waaye mun nañ fi def ver ba transparent boo xam ne kenn du ko gis. waaye man su ma njoolee bu ma nee bëréer rek mbëkk ko loolu mooy maanaam le plafond de verre dañ koo tegal jigéen ñi parce que bu ñu fàtte ne ba léegi mi ngi wàññeeku waaye dañoo nekk ci société yoo xam ne dañu yaakaar ne baat ak jiite wàllu góor la ni mu nekkee wàllu góor nag si kër yi ak si société yi noonu lay nekkee wàllu góor si entreprise yi moo xam entreprise de presse la par feneen fi mu nekk nii boo jëloon euh, sur 183 pays au monde je pense que y a à peine sept yoo xam ne jigéen moo ko jiite ci àdduna bi yëpp loolu dafa am lu muy furndeel même parité bi ñuy wax ñun Sénégal ñi ngi nekk si ay 45 pour cent 46 pour cent et quelques mais boo demee exemple France bi matuñu à peine pour cent loolu dafa am euh, lu muy wunde léegi euh, dëgg la bërëbu taskatu xibaar yi aussi dama koy wax démb maa ngi koy wax ci benn waxtaan nit ñi danoo foog ne euh, ñun ñi nekk ci média yi dañoo nekk ay sénégalais wala ay nit à dañoo fàtte ne ñun dañoo jóge ci société sénégalaise maanaam li société bi doxal ak ni muy gisee rek ñun noonu la ñuy doxalee noonu la ñuy gisal boo duggee si lu tax duñu promouvoir jigéen ñi xoolal léegi bu dara desul woon rek lu may ñu war a benn maternité dañ naan Binta demal mm-hmm. woon par exemple mu am benn cérémonie militaire kanjal Diop dañuy jël kenn ku góor euh, shérif wala keneen wala papis ne ko ne ko demal maanaam ni ñuy séddalee liggéey bi ci famille yi ak ci askan bi dañ ko indi ba ci bërëbu taskatu xibaar yi mm-hmm. dëgg la Euh, man xam nga kenn mënu maa wax loolu ma gëmul. am na remaniement yu fi amoon RFM. Mhm. dama doon wër Youssou Ndour. Mhm. j'ai loolu munul nekk parce que quand nañu waxante dëgg RFM bii dafa am ay jigéen ñoo xam ne danoo compétente takku si métier bi et je mhm. que waroon nañ leen valoriser. waxtaan naa fi daaw ak ñoom naata. Euh, xaw ma ndax soppeeku na Alsane Samba Diop xaw ma fu mu nekk maa ngi koy wër sama rakk la bu ma jox cër. mënuma comprendre que yenn réunion de rédaction yi jigéen ñi duñ ci participer. formation équilibrée day jël préoccupation góor ñi ak préoccupation jigéen ñi donc je pense que bërëbu taskatu xibaar yi bu dee TFM dafa bëgg a nekk pionnier groupe pionnier ak leader. dafa war aussi wane ko ci fànn yépp donc maa ngi wax sama xarit sama càmmiñ Youssou Ndour euh, ak ñi ŋànk TFM groupe GFM yépp maa ngi profité aussi ci huit mars bi pour firndeel leen na man journaliste laa am naa dégg-dégg ci métier bi ndax am naa ci expérience ndax même bu ma ci amul xarañ boobu ay jigéen yoo xam ne vraiment seen place war nañ ko gën a mën a valoriser gën ko dëgëral. jërëjëf Oustaz bala waa ba ñu gaaw parce que waxtu bi. waaw man beneen côté bi rek euh, ci taxawaay bi nga xam ne jigéen ñi am nañ ko. Mhm. fu ngeen di euh, dem ci réew mi ci biir réew mi fu ne. Mhm. jigéen ñi rek coono yéen fay dem pour mhm. xool nu mu mën euh, jigéen ñi jaay seen bopp ci mbedd mi par guddi. te am na ci ñoo xam ni la tax ñu koy def coono moo tax ñu koy def. wala dimbali seeni i waajur. te loolu du sagal jigéen du ndabal jigéen. ndax jigéen ñi duñu liggéey ba 6 heures rek ñu wàcc dem tëdd jigéen ñu ñenn jigéen ñi nga xam ne newuñu ci loolu ndax lenn jigéen ñi waruñoo ñoom itam guddi gi ñuy dem biir ndakaaru ak li wër ndakaaru jigéen ñi taxaw ci mbedd mi pour dem waxtaan ak ñoom xool beneen solution pour euh, valoriser euh, taxawaayu jigéen mm-hmm. ndax euh, mm-hmm. du loo xam ne rafet na mm-hmm. du loo xam ne jekk na jërëjëf oustaz loolu pour man question yërmande la maanaam ay préoccupation humaine humaniste la bëtu yërmande la te man li ma gëm mooy ne ne euh, fu jigéen nekk rek ñu sàgg suturaam wala moom si boppam mu jaay suturaam parce que dafa tële quelque part ñun jigéen ñëpp la touché ñun jigéen ñëpp la la laal. Euh, man duma la ko nëbb duma génn kotu guddi naam sax mais chaque fois léeg-léeg su ma génnoon surtout bu ma tukkee dama koy gis parce que loolu aussi danga koy gis lu bari en Europe. Mm. vraiment boo jaaree si yenn rue yi gis jigéen yi xaw a làqatu noonu si feu yi si wetu garab yi bu dee fu demee ni bois de sa àdduna yëpp dafay tukki parce que li ngay gis d'abord man li may wala nga jaar Bruxelles dugg si train bi gis leen ñu dugal leen si ay vitrine noonu mel ni ay poupée sa àdduna bi yëpp dafay tukki te problème bi ngay jëkk am mooy nit ñi lan mooy seen sécurité ñun nga xam ne léeg-léeg bu dee wanag bi dafa nekk ci cour bi sax soo bëggee dem danga naan sa borom kër wala sa doom bu góor gunge ma parce que dangay ragal sax peut-être traverser bi nga gis jigéen ñoo xam ne minuit ñi ngi ci tali bi ba 6 heures du matin loolu lu metti la c'est vrai ko gën a dugal dugalaat suñu waxtaan yi mais li ma la mën a firndeel rek mooy aussi amoon na xaw ma nag ndax mi ngi am ba léegi ay kuréel yoo xam ne dañuy jéem aussi récupérer si femmes yooyu di leen wutal tamit ay activités génératrice de revenus pour ñuy mun di jënd di jaayaatu pour mun a génn ci loolu mais bu soobee yàlla oustaz waxtaan boobu dinaa ci jox ko waat association yi pour ñu gën ci mën a bàyyi xel ndax fragilité jigéen ñoonu suñu fragilité la ñun ñëpp aussi loolu dëgg la mais jatu man fi may tëjee bala ñuy dem ci information yi parce que xam nga ni yow itam jusqu'au bout des ongles <laughs> euh, dafa am benn aspect boo xam dafa am solo ci man bu ma préoccupé mooy euh, euh, l'éducation des filles à l'école les grossesses précoces on va dans le sud du pays principalement à Kolda mm-hmm. le taux avoisine cinq pour cent. grossesse euh, précoce à l'école je pense que comme ñoom ñooy nekk suba yaay. et mhm. tout ça et puis le milieu scolaire ne favorise pas le maintien des filles à l'école pendant la grossesse. Mhm. ça pose un certain nombre de problèmes. Mhm. ban xalaat ban message lan yoo nga xam ni ñi ci liggéey ñu monde de la communication war nañ ci jëbale suñu acte. suñuy stratégie ñu tëral ko mhm. mais tey jii euh, ban jàngat nga ñuy wax ak ban message ngay joxe. pour ñu mën a xam ni mariage précoce tout si qui comporte la fille à l'école mhm. di ko di koy handicapé ba du mën a jàng te mu war a mën a jàng comme góor war a tekki comme moom mhm. ëllëg pour téye kër gi mhm. ban message nga ñu joxe bala ñu tëj loolu moom question la plaidoyer la mbir mi dafa am ñaar ba ñetti fànn soo demee si école yi li ñuy wax parce que man liggéey naa lu bari si la scolarisation des filles dès le début nag commencé ko reportage Fongolembi Dalota Saraya parce que ay zone résistance la woon sur la scolarisation des filles defoon naa ay documentaire à ba ñu wax ji di soog a ñaari fànn boo demee si école yi am na ba léegi li ñuy wax ay cellules ko fii boole ci ay enseignants ay enseignantes di jéem a tàggat xale yi di jéem a yee seen bopp euh, am na ci loo xam ne euh, ñun médias yi ñoo ko war a liggéey mais am na ci loo xam ne état bi daf ko war liggéey. Mm-hmm. man mos naa ci interpeller Kalidou Kassé euh, Kalidou Diallo bi mu mm-hmm. nekkee ministre de l'éducation xam nga lan laa mënul xam yow nga nekk jàngalekat ñu dénk la doomu jàmbur ñépp xam nañ ne jàngalekat dafa am ascendant ci xale bi muy jàngal. nga xëy suba enceinte xale bi ñu dugg génn la pire de sanctions mooy ñu affecté la beneen école man li ma gëm mooy ne sax finalement joote bi dañ ko nar a yóbbu feneen donc aussi il faut loolu dafa am lu luñ ci wax dañ si légiférer y a des mesures disciplinaires yoo xam ne dañ ko war a teg jàngalekat boo xam ne dañ ko dañ def loolu dañ ko ko war a teg donc si niveau école bi déjà si biir école bi parce que grossesse yu bari aussi dafay am si école yi di ci école yi rek mais dafay bari si école yi nañu def li loi bi taxaw te loolu sax man sama waxtaan beeg yéen tey daf ma inspiré bu soobee yàlla ñun association de femmes yeeg yooyu dinañ xoolaat aussi nan la ñuy tegaate pour def l'alerte la veille et la pression pour que loolu bañ am wala bu amee aussi jàngalekat ba xam ne moo ko def ñu teg ko daan yi ñu ko war a teg parce que bu ñu la dénkee élève dafa am beneen bët ak leneen lu la war si moom lu may xëy suba ne tépp toog di xool yaayam di xool ay waajuram xale ba toog ñu dàq ko loolu loolu loolu je que am na luñ ci war a mën a Jatu euh, <laughs> instant bi ñuy waxee ni syndicat yëpp ñu ngi ci mbedd mi tey jii. Mm-hmm. parce que front social en ébullition. Mm-hmm. alors que ñu ngi waaj injecté pour une semaine un milliard et quelques mm-hmm. dans un référendum. référendum. Mm-hmm. dans une campagne électorale. Mm-hmm. Mm-hmm. mais ça ça, pose problème Diatou. waaw gis nga euh, man euh, je pense que problème bi c'est plus profond nañu waxante dëgg ndax dëgg yàllaa ko moom je pense que le président lay Wade lu mu ñëwee au pouvoir dafa déri déréguler totalement le système de rémunération au Sénégal. parce que loo xam ne ñëpp dañ ko bokk am ay gris. ba mu xëyee suba ñot di ne damay yokkal ministre yi xëy suba ñot di ne damay yokkal magistrat yi la affaire bi commencé am désordre liggéeykat bu nekk ne man fi ma taxaw li may liggéey njariñu Sénégal la donc man tamit dañ ma war a yokkal donc je pense que système bi dafa déréglé da mm-hmm. on a dérégulé le système de rémunération je pense que loolu dafa indi ay problème léegi tamit euh, man dégg naa sànq bi may ba bi may ñëw maa ngi déglu rajo bi dégg naa ñuy wax enseignants yi démb seen discussion yi ak mm. ministère de ak euh, mm. l'État waaw euh, ñoom 14 euh, milliards la ñu prévoir woon pour l'ensemble des fonctionnaires mais revendication enseignants yi ak yooyu 10 milliards dinañ ko génne def ko foofu et en deux mois dinañu résorber lu ci des mais am na yenn syndicats yoo xam ne dañ nee nañ dañuy continuer grève loolu pour man tamit c'est un problème mm. parce que tamit flexibilité la euh, flexibilité la négociation bi même si mën nañu d'accord ne état bi tamit quelque part moom moo xoj boppam parce que moom moo demoon signé ndax man li ma gëm mooy ne ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal kenn moomul Sénégal mhm. bu fekkee état bi am na loo xam ne tële na ba tële ne mënu ko signé mu leeral ko askan bi yëpp après tout enseignants yi moomuñu bu keroogee tamit askan bi dinañ positionné wu pour ñu mën a trouver terrain d'entente donc état bi tamit dafa war a moytu di signé doyen Youssoufa Wade ma koy sargal moo yore woon comité de dialogue social am na lu ma mus a wax fekk ma invité ko sama benn émission RTS mu ne ma jatu xam nga lan mooy problème mu Sénégal du ñu négocier du ñu ja du ñu du ñu du ñu dialoguer dañuy négocier. Mm-hmm. négocier nag xëcc la rek ku ne am rapport de force jël loolu mooy euh, fausser problème bi c'est état bi moom mi ngi def ay erreur la waxuma xaalis bi ñuy def sax ci référendum bi mais euh, prime yi ma dégg mënoo am ñii di jooy rek léeguñ ko dëkk bi bëgg a bloqué prime yi nga xëy suba gis naa ministère de l'enseignement euh, de des finances am na catégorie de fonctionnaires yu mu xëy suba accordé leen ay prime de 150 à 400 000 francs 150 000 je trouve que dans le contexte actuel c'est une erreur stratégique grave loolu mënuñu ko def dans un contexte de revendication généralisée mm. yow faju fajuloo lale nga jël lale du ko fa def je trouve que c'est une erreur stratégique grave loolu moom euh, man euh, maa ngi koy ñaawlu leneen li bu si desee tamit man je demande à mes camarades aussi syndicalistes enseignants xam nga lan moo metti euh, grève u enseignants yi bokkul ak grève ñun média yi mm-hmm. nag ku fi xëy suba dégluwoo ba deux jours du la wàññi dara hmm. mais xale yi minute bu ñu perte ci programme hmm. perte la te nañu waxante dëgg xale yi nga xam ne seen yaay dafa tële seen papa dafa tële ñoom ñoo def ci des ci système bi mm-hmm. man samay doom demuñu ci système bi doomu keneen demuñu ci système bi te ñun ñi soo gisee tey ñu mën a réaliser wu nekk ci li ñu nekk ba ñu ñu tudde école publique la ñu jànge mm-hmm. suñuy papa ak suñu yaay dajalewuñu woon dara pour fayal ñu jàng parce que école publique dafa baaxoon donc maa ngi leen di ñaan ñu xam aussi ñoom tamit que les principales victimes c'est les élèves parce que nag nañu waxante dëgg quantum heure quantum horaire quantum horaire rek la ay rattrapé nañoo tëj nañu xale yeeg on va faire le maximum c'est people ce que je dis mooy ne xale yi bu ñu ñëwee jàpp leen di leen bu bu bu ñu bu ñu bu demee ba temps bi jeex ñu jël programme bi def ko en vrac parce que la pression est sur tout le monde examen yaa ngi bëgg a ñëw la pression est sur les enseignants la pression est sur les élèves cours ba ñu leen naroon jàngal en deux semaines ñu jox leen ko en vrac en une semaine il y a des lacunes j'ai entendu une élève de Sédhiou diir ñun dañuy ñëw rek jox ñu programme yi noonu duñ ñu duñ ñu may sax ñu poser question donc je pense que amul benn grève boo xam ne mun nañ ko fi rattraper en termes de de de quantum horaire et en termes d' apprentissage effectif dans les classes grève bu fi grève xale yi dañoo perte te lu ñu perte xale yi nga xam ne seen yaay ak seen papa yi seen loxo jotul seen ginnaaw. ñoom ñoo perte donc état bi nay seet li mu mën. <laughs> mais enseignants yi tamit nañu am tuuti flexibilité parce que matière bi ñuy intervenir moom mooy délicate te enseignant amul benn fay bu ëpp nga yow nga bi nga taxaw di xaar kaar koo xam ne xamul woon i xamul woon a ah, romb sargal la ne la jëndal guro wala sa àllarba ak fayu yàlla jërëjëf jatu jërëjëf jatu maa ngi kontaan bon dans tous les cas ñi ngi ànd ak yow ci xeex bi ba tey bon di la sant ci li nga teel a ñëw tey yow tey ñëw fekk suñu ci jaare ko ci Binta di la wax rek ni ànd nañu ak yow ci wàllu wépp communicateurs yi tous les communicants communicateurs traditionnels yi ci wàllu woowu ngeen di xeex ci sens d'éveil et d'alerte ñu ngi ci ñu ngi lay jox suñu accord ci wàllu woowu mbokku téléspectateurs yi mi ngi noonu ñi ngi dégg dalaloon mooy jatu xam ngeen ko ci wàllu wi muy dégg ak li ñu ci dégg kon ñu dem ci journal bi ànd ak sunu mbokk Chérif mbokk yi salaamaaleykum rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média xibaaru juróom-ñetti waxtu yi dañ koy tàmbale rek ak ndaje mu mag yu syndicat yi nekk ci wàllu njàng meeg njàngale mi wàllu wér-gu-yaram wàllu justice wàllu collectivité locale ñoom nag li ni sàkk ci gouvernement bi mooy mu sàmmoon teeg xaatim yi xaatimoon ci at yi ñu weesu wante tamit respecté rek yeneen engagement jëm ci yamale travailleurs yi nekk ci wàllu fonction publique di leen ci dellusi si suñu xibaar ndax ndaje moomu ñetti waxtu la ci ngoon. ba léegi sax démb amoon na ndaje mu doxoon ci diggante gouvernement bi ak seen syndicat jàngalekat yi wante juba mujjul am gouvernement bi nag monte day digle ne dina joxe lu toll ci fukk ak milliards ak ñaar rek jàngalekat yi ngir seen wàllu rappel wante ñoom jàngalekat yi dañoo bëgg ñu matale lépp Amadou Ba mi dénk wàllu koom-koom bi moom moo ko xamle démb. ba léegi ci ñaxtu yooyu waa Sonatel moom intersyndical ba jóg nañ li ni ñaawlu mooy externalisation réseau bi jàpp ni France Télécom dafa bëgg teg loxo ci Orange ak Sonatel fii ci Sénégal te loolu bu sottee rek nasaraan bi moom mooy teg loxo koom-koomu Sénégal ba tax ñu tiit seen ëllëg daal di yëgle ñoom nag am nañ ci njàppale M23 ñu ànd ci ak soxna Mayna Mouna moon na que intersyndical bi dajalee liggéeykat yi fare ci Sonatel nee na ñu mënatuñu ndax kat tëralin yi nga xam ni France Télécom mi nga koy def ànduñu ci ni ñu bëgg mooy ñu dimbali leen bu baax ci loolu nee nañu dinañuy dem ci grève juróomi fan. projet de transformation bii ñu bëgg def suñ ko nangoo état bi dootul amati ndogal souveraineté dootul ci amati ba pare données yi dootul am confidentialité dootul am benn secret bu ci nekk. sunu dernière assemblée générale bi ñu def ñu ko def ca siège ba assemblée générale boobu dañoo ne bu ñu amulee li ñu bëgg fii ak une semaine dinañu def grève boo xam ne bii cent vingt heures lay doon. du lundi au vendredi assemblée générale ba validé validé nañ ko ba pare. yéex yéex ñu ne dafa am ci seen dossier li ñu bëgg nag mooy nguur gi daal ci xar tànk tubéyam. dañu yaakaar ne Sonatel milliards yi muy def milliards yu bénéfice ay doomu réew yi ñoo koy liggéey Sonatel amul lu dul cinq expatriés ñi si des ñëpp ay sénégalais lañu dañoo bëgg li nga xam ne ñoo koy liggéey richesse yi nga xam ne moom lay créer doomu réew mi di ci jariñu askan bi yëpp di ci jariñu Sénégal Sonatel continuer di contribuer ci li nga xam ne lii mooy koom-koom gi ba mu ba mu gën a jëm kanam. intersyndical bi moom rek du wéet ci xeex bi ay mouvement ay kuréel yu ci mel ni M23 nee nañu dina ci jàpp bu baax. ñun ñoo investir Sonatel xaalis boobu mu dëlluwaat tugal loolu la ñuy bañ. te bañ boobu ñuy bañ dafa war a nekk loo xam ne syndicat yëpp dañ ci war a taxaw euh, patriote yëpp dañ ci war a taxaw ñi bëgg réew mi yëpp dañ ci war a taxaw parce que bu ñu defu ndànk li xew tras mooy lu métti dina xaw feneen ak feneen. liggéeykat yi nee nañu kenn du dem ñu des dinañ ca teew li ñu bëgg nag mooy nguur gi daal di taxaw ci seen mbébét. del si ci jàmmarloo yi doxoon démb ca marché central bu Rufisque diggante agents municipaux yi ak commerçant yi ñoom nag commerçant yi agent yi dañ leen fa bëggoon a jëlee ndax dañoo occuper voie publique bi loolu nag ñoom ñee jaay ak jënd ànduñ ci ba tax jàmmarloo bu métti dox seen diggante di sànnante xeer ba am na ñu ci jàpp am ñu ci am ay gaañu gaañu Ousseynou Thiam Bira Diagne tey jii nag jaamaar yool yu metti la ñu nemmeeku fii ci marché central bu Tëngéej ci diggante lii di brigadu mairie bi ak ñii di commerçant yi mu doon ay jaamaarloo yoo xam ne yi nag yàgg na lool ci biir marché bi ba ba sax gàllankoor lii dem be lii di dem beeg dikk bi askan wi nga xam ne nii ñoom ñoo fare ci quartier yi féeteeg lii di marché centrale bu Tëngéej ci li waral nag jaamaarloo boobu mooy dogal bi nga xam ne bii lii di maire bi jël na ko ngir nag jële jaaykat yi nga xam ne nii ñoom ñooy nekk ci mbedd marché central bu Tëngéej gannaaw nag ay jaamaarloo yu bari yoo xam ne yi nemmeeku woon nañ ko fi nag ci diggante ñii di commerçant yi ak lii di brigade bu maire bi tey jii nag daanaka lii mënul woon a ñàkk bañ a am ci wàllu commerçant yi nag nee nañ nag lii di brigade bi daf leen sonal lool yàqal leen nag seen jaay mi nga xam ne nii ñu ngi koy jaay. ñoom ñu ne duñ fi jaay may ñu fuñ ñu jaayee suñuy jël dañuy jël suñuy bagage di ko jàpp di ko yóbbu di ñu fayeeku xaalis te loolu du yoon nañu bàyyi ñu liggéey liggéey lañ bëgg. a gis mu doon nag jaamaarloo yoo xam ne yi ñu bëri am na ci ay gaañu gaañu waaye tamit ñoo xam ne ñi lii di takk der yi teg nañ leen loxo wàllu lii di municipalité bi nag nee nañ du ñu jóge benn yoon ci ndogal bi nga xam ne ni jël nañ ko ngir nag di raxas lii di marché bi jële fi lii di marchand ambulant yi ak ñi nga xam ne ni dañuy gàllankoor dem beeg dikk bi fii ci diwaanu Tëngéej del ci tiis wi ñu doon ndox fan yi yëpp amee ca bogal ca région bu Sédhiou foofa nag ñaari jànq di Aminata Ba ak Oumou Diallo ginnaaw ba leen ay sàmba booy sàkko faat leen sànni leen ca dex ga ñoom nag jëbal nañ leen seen borom démb procureur bi nekk ca Kolda jiite rek tribunal de grande instance boobu sax démb dégg ngeen ko ci sunu xibaar yi fii ci TFM nee na dinañ def seen kéemtulaay kàttan ba dëgg gi ñu xam fan la féete ba ñi nga xamante ni tamit def nañ ko yoon daal leen di teg loxo ñu ànd ci ak Bakary Konté Aminata Ba ak Oumy Diawo ñu ngi leen denc ci cimetière bu Bogal ci jeudi bi 17h ma bu mu jotee levée du corps bi mu ngi am ci hôpital régional bu Sédhiou ci 14h bu mu jotee ay parents daal kee fekkee ñaar xale yi jigéen yi dañ leen violé daal leen assassiné daal leen sànni ci benn dex bu ndaw boo xamante ni mu ngi ci diwaanu Bogal ci suñu source yoo xamante ni jot nañ ko ci enquête bi ñeent nit fu mu nekk nii dañ leen interpellé depuis mercredi fu mu nekk nii ñu ngi leen tee ci brigade mixte bu Bounkiling foofu ci département bu Bounkiling procureur bu Kolda moom fu mu nekk nii ñaan na gendarmerie mu dal di wéyal l'enquête bi pour mu daal di leeral mbir mi cas de viol ci diwaan bi dafa bëri loolu fii ci région bu Sédhiou at bu nekk dina am ay cas yoo xamante dañ koy enregistré fii ci Pakao Balantakunda fu mu nekk nii nag nañuy fàttale ko ci dex boobu ñett nit jot nañu fa faatu ci at yi ñu jóge nii ñaar ñi faatu mu nekk juróom maanaam Aminata Ba ak Oumy Diawo fu mu nekk nii ñu ngi leen denc ci cimetière bu Bogal. wàllu politique ñu wax ci référendum bi xam ngeen ni tey bu min wi joteel euh, campagne bi ubbi ba taxaw opposition bi fii ci ndakaaru ñoom nag samp nañ seen comité électoral mais li leen jaaxal rek mooy ministre de l'intérieur doxalinam tey na seen xel ndax danoo jàpp ni Abdoulaye Daouda Diallo dafa tàmbali di soppi ay sous-préfet fii ci ndakaaru ba tax daal ñoom waa front du non nee nañ duñ ca daal ba tax ñu dañ ciy déglu rek Abdou Lahad Seck moom moo jiite comité électoral bu front du fii ci ndakaaru ci micro di Saprera am na ci préparation wu référendum su sous préfecture yu Ndakaaru wi seen jë seen doxalin bokkul te loolu yëpp c'est pour tarder ñu dimanche bii di ñëw si les militaires yi di wote est nit ñi danañu préparer am ñu leen di représenter normalement ci bureau de vote loolu moo ñu jaaxal fu ñu nekk nii moo ñu ëlëm li ñuy wax ci départ bi rek lu xam jiitu rëcc waru ci mujj fii ci Dakar préfecture la muy wax ci su préfecture plateau di ko wax ci sous préfecture Grand Dakar di ko wax ci sous préfecture Almadi di ko wax sous préfecture Parcelles bokkul kayit yi ñuy laaj bokkul yenn sous préfecture yu mel ni Parcelles dañuy laaj ku ne indi sa kayitu parti sa accréditation parti sa kilifa parti bindal la ni diwkat moo may teewal ci coalition bi sous préfecture Grand Dakar laajul loolu ñoom dañuy laaj lettre mu nga xam ni man mandataire bi maa koy signé boo demee fële ci plateau sous préfet bi dafay wax ni. yéen bala ngeen di déposé am na groupe bu déposé ci turu ci turu non parce que lii code électoral bi wax mooy parti politique wala coalition de parti mais courant amul fenn mais li ñu gis courant la ñu andi kenn ku ci ne ñaari nit fii mën nañ dem déclarer ni ñooy courant bi ku koy mën a Serigne Mbacké Ndiaye jiite convergence libérale patriotique moom nag euh, parti boobu léegi parti la sax nekkatul mouvement moom Serigne Mbacké Ndiaye nekkoon fii ki yor kàddu ko président Abdoulaye Wade nee na rek bépp libéral li nga war a def mooy nga daal di voté wii di sàkku tamit ci président Macky Sall mu daal di jégal Karim Wade ñu déglu Serigne Mbacké Ndiaye ci micro a Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy. su ma doon wut poste ba ma Macky Sall jëkkee recevoir laa ko naan président cër mu cër ma. du sama objectif du sama ambition li ñu gëm mooy Sénégal présenté nañu président indi na fi ay réformes yu mu proposé fukki point la ak juróom buñ ko jàmbar càmbaree xool ko xoolaat ko benn bi ànduñu ci parce que ñun mandat wu sept la ñu bëgg beneen bi ci des am nañ ci gis-gis même bu dee contre ñu mooy conseil constitutionnel wax nañu ko bu ñu sañoon juróom-ñeenti membre lay doon ñeent yi wax nañ nan lañ leen war a jëlee assemblée nationale conseil économique et social avocat yi ak élus locaux yi. ñaan naa suñu mbokki libéraux yëpp ñu voté oui benn wax naa ko bëgg naa jàmm continuer dal di am ci réew mi ñaareel ba tant que ñu ngi dund ci tension Karim du génn ci kaso jàmm ak dal moo ko mën a génne looloo tax ma ni président ma ñaan ko ñëpp di ko dégg solennellement. leer na ma ni am nay détails du mu ci dugg mais ñi ma ko séqal xam nañu ba ñu tàmbalee man di dox ci mbiru Karim Wade booba egg guñu ba léegi. bu ñu ne woon teg seetaan ñu ba tey Karim génn na kaso mais bu kenn di gas fukki di suul pour ndey bari rek may pax du am. kon jàpp naa ne bari nañu ci yëngatu ñoo nga xam ne Karim des ci kaso bi moo leen gënal mu génn. su ma doon wut mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi tukke woon ci xibaaru juróom-ñetti waxtu ci seen émission yeewu leen ñu bàyyi leen ak doyen Aziz Mbaye mu daal di wéy moom ak ay chroniqueur am te ñoom bokk ci Oustaz Pape Dia mu ngi nuy jàkkaarloog Alfi lekk gi rek ngay xool jërëjëf. jërëjëf euh, euh, euh, Chérif ci loolu nga indi xabaar yooyu xam naa ni ñi ngi dem ci waa Rahma Damba ñi ngi pare Adja Binta ci liñ ci jàpp li gën am mooy li nga xam moo am ca Sédhiou bokkal ci boggal ca mm. région Sédhiou ay xale yoo xam ni dañ leen a ba pare rey leen sànni leen te loolu am na ci solo ndax defe naa ni aussi li ci am solo mooy jàpp nit ci am na solo waaye teg ko daan yu méngoog li mu def am na solo mais laata loolu dafa am ay préalable lii mooy jaral lijjanti personne n'est en sécurité ñu nekk ñu en sécurité suñuy njaboot nekk en sécurité ndax jàpp ay xale def leen li ngeen def ba pare mutiler leen sànni leen si biir darte kenn gisu la yaakaar naa ne doy na waat ci réew boo xamante ne nee na ñu am na sécurité sax nee nañu foo nekk am na poste de police fu nekk force de l'ordre yaa nga fa mais toujours ñu gis ñu rey ay nit. toujours ñu ngi léegi braqué en plein jour nit ñi di dugg si kër nit ñi di leen braqué di jël seen alal mais où sont de sécurité. sécurité réew loolu moo war a nekk priorité man je pense. te loolu def naa ça fait défaut ici au Sénégal. Pape réew mu doy waar waaye nag. Euh, yaakaar naa euh, moom ñi ko def loolu. dinañ xam ne doomu aadama dafa foor. foor gi nit foor nga def nit lu bon foo jaar di nga feeñ. ak lu mën a xew ña def loolu moom nañu bàyyi xel ni daañu leen jàpp te bu ñu leen jàppee nag li jaadu woon mooy rey googu ñu rey xale yi ñooñu dañu leen war ci pénc mi ñëpp di leen seetaan en ñu rey <laughs> jërëjëf waaw waaw waaw. xam nga mu laay dafa am ñoo xam ne duñ ay nit alquran nee na am na ñoo xam ne euh, euh, euh, doj xeer sax moo gën a no moo leen gën a nooy ndax seen ay xol yu dëgër ndax ay xale yu tuuti nga jàppal leen def leen nii ba pare faat leen nekk ne loo xamante ni lu ñaaw la il faut aussi li Adja Bintou wax ñu prôné ko mooy leen sécurité d'abord réew bu amul sécurité daraam daraam du dox ndax jëf yi xam nga ne ñaaw na. fekk ay xale yu tuuti wala toll ci jàng comme ni ko euh, soxna Jatu euh, Badiane waxee léegi nga ñëw def leen jëf ju mel nii après dañuy toog ñaari fan ñett ñu coow ko mu jeex bu ëllëgee moo parce que c'est pas la fois donc état bi il mu jël ci ay mesures dimbali nit ñi parce que ñooñu ay jigéen lañ te sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne jigéen ku tedd rek moo leen mën a teral mais ku torox doyadi rek mooy toroxal jigéen. jërëjëf oustaz ci loolu nga wax ba la ñuy dem di wax rek nii xanaa nit ñi sécurité bi ñu renforcer ko waaye nit ñi di mën a boole parce que jàpp sa njàmbur ci lëfit ba mu ëpp baaxul gis dara luy lore nga boole polis téléphone joxe nañ ay numéro ba tàyyi joxe nañu gendarmerie joxe nañ ku lu nekk boo xam ne bu jotee rek war ngaa mën a woote wala bokk nga dégg dara ni gis naa diw def ko loolu bokk na ci li nga xam mooy dimbali waa sécurité kon ñu dem ci alfi euh, ak waa Rahma Damba ñu yëngal yaram yi tuuti doog a dellusiwaat ci plateau euh, yeewu leen waaw tonton Aziz comme euh, ñu koy defee chaque aljuma di ci ànd ak waa Rahma Damba fitness tey ñu ànd ceeg ñaari coach euh, ñu fas yéene tàngal yaram yi comme nuñ koy defee chaque matin donc coach euh, ñu ngi leen di nuyu. di leen jaajëfal ci teew bi ngeen di teew ci yeewu leen. donc ñu bàyyi leen ngeen wax ñu tey lan ngeen ñu àndil. tey bon renforcement lañu indi renforcement musculaire. musculaire vendredi passé defoon nañu renforcement ak gainage. Mhm. léegi dañuy defar renforcement musculaire mhm. parce que dama gis ay tapis tey yu ñëw. donc euh, abdominaux yi da ciy bokk ak. waaw waaw abdominaux yi dañuy travailler. mais ah. balaa boobu dañuy échauffé tàngal yaram bi yee muscle yi. voilà ah, kon ñu bàyyi leen euh, ak waa Rahmadam ba fitness après ñu ñëw ci conseil. tire vers C'est bon yes. Allez. On On est là. On forme l'angle ici. On est ici. la nuque ne touche pas le tapis. On est là. Tout doucement. C'est bon, coach Maintenant, ici. Let's On concentre les abdos. Quatre. Cinq. Six. Sept. Vem. Não. E anda. Um. Dois. Três. Quatorze. Quinze. Anda. Seis. Sete. Huit. Nove. Et vingt. Deux. Là, on travaille les grands droits, les muscles qui sont ici. Hein?

là, Jusqu'à présent, on est en travailler les grands droits. Hein? Maintenant, on va travailler les obliques. C'est bon Allez, coach, on est là. Même chose. C'est ce qu'on appelle le crunch twisté. C'est bon On est là. Deux. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. bon À faire. Encore plus difficile. Ça travaille les obliques. Ok Et donc, on va essayer maintenant de terminer. On travaille aussi les obliques, la taille. Ici, qu'est-ce qu'on fait On est Cette fois-ci, on pose carrément les jambes. Qu'est-ce que je fais Je bouge la cheville je reviens. Hein? On est prêt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 10. Bon. Qu'est-ce qu'on fait On s'étire. Ouais. Okay. On est là. Caramba, um pouco. Já ficou bom? Ok. Tá bom? Olha. Ok. Et bien, change de côté. Cherche vers l'avant. Ok, on est là, on retire les abdos. Allez, on pousse. regarde vers le haut, vers l'arrière. Ok, côté gauche. Côté droit. On le remet en place. Voilà. Ok. ah bi moom xanaa Pape Cheikh lañ koy bàyyi. waaw waaw bi moom lañ ko bàyyi Pape Cheikh wala wala oustaz Playboy. waaw oustaz Playboy moom dina man dina mën bi. <laughs> <laughs> donc lan mooy conseil yi. waaw conseil du jour bi tey abdo yi la gis nga abdo yi lañ doon liggéey. ñu bëri dañuy foog ne mënu ñu am. Mhm. abdo yu plat. ñëpp a am. mais boo demee ba am biir bu rëy moom baa dina man dellu. ñëpp mën a am biir bu ndaw. d'accord amul kenn ku am biir bu ndaw. mais nag y a des pour am biir bu ndaw il faut se fixer quatre objectifs. <laughs> Mhm. ne pas surentraîner les muscles. d'accord boo ko entraîner tey. Mhm. suba nga noppal ko ginnaaw suba nga entraîner ko. deux les sucres rapides. Mhm. gâteau. soja. sucrerie. ñu wàññi ko carrément. carrément. autre chose les sucres complexes. à savoir le riz les pâtes. si on waaw moo si on peut remplacer ça <laughs> par les céréales c'est mieux deuxième chose troisième chose ne pas toujours utiliser les machines parce que xam nga les machines quand tu utilises la machine la machine sollicite seulement peut solliciter seulement seul muscle et pas les autres mais par exemple qui si je travaille avec les tapis mhm. je peux solliciter encore d'autres muscles du corps tout à fait. troisième aspect mhm. et le quatrième le plus important c'est quoi mhm. c'est dire que le cardio c'est à les entraînements c'est à vie. à vie di ko def daal bañ ko bàyyi di ko def chaque jour parce que vous savez muscle lii loxo. Mhm. mën nga ko liggéey dans un mois tu vois des résultats. Mhm. tànk dans un mois tu vois des résultats. Mhm. mais biir c' est pour nga mën ko am daal il faut nga am patience voilà. a bàyyi di respecter entraînement yi. voilà kon ñu ngi leen di jaajëfal euh, coach Warahma Damba. donc tonton Aziz. fitness bangok ñu bàyyi la nga wéyal yeewu leen. jërëjëf Alfi ak Warahma Damba ci conseil yooyu ñu indi mooy euh, biir boo xam ne day tàcc day plat ñu koy wax di ko sportif di wax en tablette de chocolat. xam naa ni loolu moom dina xaw a jafe ndax ceeb bi ceebu jën beeg ndox mu sedd bi ku ko toog balaa sa biir a tàlli nga tàlli yow kon mbokk yi ñu dem ci li nga xam mooy def ci sunu poste dara muy publicité déggu del soit ci plateau yeewu leen